baax a baax de l'autre côté alors ñu jàll léegi léegi ci euh, euh, li ëtt su yéene kaay xëy fësal sëñ naa doore ko ak Walf Quotidien Walf Quotidien lañ koy tàmbalee dafa xëyee fësal tànk ne meek yi nga xam Bassirou Diomaye ko ni ki démb fële ca Côte d'Ivoire président moom waxtaan na nga xam ne Alassane Dramane Ouattara waaye lu jëm ci question franc CFA waxu ci benn yoon noonu la ko yéene kaay gi xëy fësalee waaye ne tànk yi li ko tax a mooy fexe ba gën a rëtaxal jokkalante gi nga xam dox na ci diggante ñaar noonu la ko yéene kaay gi leneen aussi loo xam yéene kaay gi xëy na ko fësal te mooy Euh, maire Thiès di Babacar Diop yëkkati na ay kàddoom di wane ne lu jëm ci nju njaay gi am foofee ci diwaanu Thiès dañ ciy tudd wàllu parcelle ak yeneen mel moom yoonam nekku ca lak taqewu ca benn yoon noonu la ko yéen kaay gi xëy fisili euh, boo nga xam producteur la ñu jóge nga seen kaddu di saako daal ñu auditer lépp daal lu jëm ci wàllu intrant mu soxla wàllu agricole noonu la ko yéen kaay gi di wàllu fukkati ji xëy fisili le soleil yéen kaay le soleil yéen kaay xëy dellu siwaat ci Sénégal ak Côte d'Ivoire euh, waxi tamit seen taxawaay ci UEMOA Euh, yéen a kaay gi ne président Bassirou Diomaye Faye ma nga woon fële ci Côte d'Ivoire jot naa daje kii di Alassane Dramane Ouattara lañ fa doon waxtaan rek mu ngi jéem a xool ci naka la ñuy def gën a rataxal jokkalante yi nga xam moo dox ci diggante naa réew yi noonu la ko yéen gi xëy hmm. wax na tamit ci waaye UEMOA wax na tamit ci CEDEAO noonu la ko yéen kaay gi di la kaay gi di l'info xëy dellu si waat ci coopération gi nga xam ne ni daanaka lu tax a jóg kii maanaam lu yitteel la kii di euh, Bassirou euh, Diomaye Faye Euh, ba tax na loolu yi bokk na ci li nga xam jot na ko waxtaan ak ki nga xam ne ni euh, moom moo di Alassane Ouattara waxtaan nañ ci wàllu coopération waxtaan nañ ci wàllu démocratie waxtaan nañ ci wàllu CEDEAO ak UEMOA noonu la ko yéenekaay gii di l'info xëy a fësalee. 24 heures gii di 24 heures ne lu jëm ci Dakar ak Badj Abidjan nañ jàpp ne euh, fay ak Ouattara fu mu toll daal ñu ngi nekk di jéem a taxawal ak yoon woo xam liñ ci jublu liñ ci jublu rek mooy fexe ba ab déggoo gën a mën a dox ci seen diggante noonu la ko yéen a gi xëy fësale yéen a gi xëy dellu si ci kàddu yi nga xam ne nii docteur Babacar Diop yëkkati ko di wax ne lu jëm ci terrain yi ñu koy tuddal fële ca euh, fële nga xam ne ca Mbourkat terrain yëpp da koo jël daal di koy séddale conseil municipal mm-hmm. lii mu daal di koy jox askan wi nga xam ne ko yittewoo Euh, waaye rek nee na la nga xam moo am foofu ca mburkat du ko bàyyi mu jàll dana fas yéene lëngaloo lëkkoo ki nga xam ne nii moom moo di euh, Bassirou Diomaye Faye euh, président ba la fa nekk ci ay njuuj njaaj daal di ko fay jëlee noonu la ko yéene kaay gi di 24 heures xëy fësale même si Sud siwaat ci gouvernance de rupture bi nga xam ne moom la Bassirou Diomaye Faye di wootee yéene gi ne neexul ba neexul waaye boo xool lu jëm ci wàllu bi wane na ko yéene kaay gi moo xëy fësal loolee nee nañ président Bassirou Diomaye Faye bu mu nekkee ci bopp réew mi léegi daanaka mbumbaay rumbaay nga xam daan daan nañ gis amatul a kaay giir Sud Quotidien xëy a euh, mm. euh, nga xam ne jot naa gisee réew yi nga xam ñoo nekk ci région bi moom mi di président Bassirou Diomaye Fay démb ngoon fële ca euh, ca Côte d'Ivoire Euh, jot naa dajeeg Alassane dana man waxtaan waxtaan nañu nag noonu la ko yéen kaay gii di critique xëy fësale réew mi quotidien a dox ci yi bokk na ci yi nga xam ne ni Bassirou Diomaye na ko amal fële ci diwaanu Côte d'Ivoire waxtaan nañu nag ñoom ñaar ba ab déggoo am na noonu la ko yéen kaay gii di réew mi scandale foncier maanaam coowal suuf gi am fële ca Mbourkat maire Thiès Babacar Diop yëkkati na ay kaddu di ci indi ay leeral noonu la ko yéene kaay di réew mi xëye fësale euh, Dakar Times Dakar Times xëye le siwaat ci lu jëm ci suñu port bi lee ak taxawaay suñu douane yi lee yéene kaay gi nag fu mu toll am logiciel bu bees boo xam moom la douane am jamono ji logiciel boobu nag euh, solo am solo gi mu am solo mooy dafay wane ne léegi da dara dootul senn foofee ci douane foofee ca euh, noonu la ko yéen kaay gi Dakar Times xëy fësalee. dem ci las quotidien. lu jëm ci pétrole ak gaz bi ba ñu koy produire daanaka étude environnementale gars yi dañ ko cee deful. wala bu amee tamit gars yi jëfewuñ ko. ba tax ñu jàpp loolu bokk na ci ponk yi nga xam gaa yi war a mën a sukkandiku boo xoolal li nga xam di contrat yi. ndax pétrole ak gaz mënul feeñ ci ab réew nga di ko exploité fekk ne étude environnementale amul di laas xëy fësale yor-yor yéenekaay wal suuf am fële ca Lac Rose ndaw ya fa te duppee na seen i kàddu ko daal di joxoñ ab baaraamatuma kii seen noonu la ko yéenekaay gii di yor-yor xëy fësale Pape aussi ci hectare fukki hectare ak ñett yi nga xam lañu koy tuddal moom Pape Diop ma ngi ci indee leeral nee na suuf soo see ñu koy tuddal suuf la soo xam ne nii dañ ko kaa fay. Mhm. ndaxte euh, boo fàttali ko Abdoulaye Wade président euh, ci jamonoy euh, nguuru Macky dafa am suuf soo xam ne dafa amoon fële ci diwaanu Saint-Louis ñu daal di koy nangu ci moom.

yéen kaay gi ne neexul ba neexul luy njig njaaga président Macky ba tax yéen kaay gi xëy samp laaj bëgg a xam ndax président Macky war naa mucc ci lii noonu la ko yéen kaay gi di direct news euh, tribune yéen kaay. ñu ngi sajjat ndënd yi lañ ci jublu ak mooy fexe ba comment bi nga xam moom la ne Bassirou Diomaye Faye dóor keroog. maanaam yóbbu keroog euh, yi ñu fexe daal naka lañ ciy dékkiwaatee moo tax nag ñu ngi woote ngir gën a taxawalaat seen parti bi lee ko yéen a kaay gii di

xale yi seen taxawaay ci réseaux sociaux yi gi ne neexul ba neexul waaye li ci am jamono ji way jur wu ne war na cee tiit noonu la ko yéene kaay gi di euh, le mandat xëy fësale Ligue des champions demi-finale retour euh, Real Bayern tey ji ci ngoon lay doon euh, démb moom Paris Saint-Germain moo mujjee éliminé Dortmund noonu la ko yéene kaay gii di stade xëy fësalee jël kàddu gi jox Eumeu Sène ci laaj ak tontu gi dox ci digganteem ak suñu naataangoo yi moom Eumeu Sène nee na di keroog mu doon bëri Sa Thiès daanaka daal Pikine la doon bëreel noonu la ko yéene kaay gi xëy fësalee Euh, dellusiwaat nag nag jox kàddu gi Sa Thiès Sa Thiès lan moo tax mu bàyyi mëninam mu ngi koy leeral euh, ci yéenekaay gii di sunu lamb. jaajëf jeex na. mu ngi noonu alors euh, le temps que ñuy bàyyi. ki di invité Diacké Mbaye di installé wu ah di madame Aminata Kanté fondatrice héritage Enebouti and Care ah sœur bi xanaa mais bon boo taxawee ba installé wu rek Salma dina la ko xaw a orienté tuuti noonu. <laughs> en tout cas t'es magnifique macha allah. <laughs> wàññiwu si dara. si dara alors le temps le temps que sunu invité di di dal di di dal loin si dina ñu ñu daal di wéyal rek peut-être si euh, le commentaire du jour avec l'actualité vue par na Omar Ba. Mm-hmm. tey aussi actualité yi bari na aussi mais li ci gën a fasaat encore. te sa revient et ah, ça revient encore mooy le problème foncier au Sénégal. Ah <laughs> Moi, j'ai l'impression. <laughs> dem bi président dem fële ca Côte d'Ivoire. oui actualité oui ça en fait bon loolu kenn waxatu ko si si actualité foofu mënoo ma bàyyi yow tamit nag. mais en fait je me dis que. problème suuf si quoi. voilà voilà les les titres qui reviennent et qui reviennent encore bokk na ci problème. problème foncier mais c'est normal aussi ma yitteel ah. parce que bu ñu waxante dëgg aussi suuf si bu fekkente ne gars yi lijjanti wuñ ko. ci ci ci musiba la ñu jëmale. mais bien sûr. kon dafay am solo des fois ñu si waxtaan. Mhm. di ci laaye biir ñi nga xam ne di ay autorité mhm. waaye l'essentiel ak yi nga xam ne président Bassirou Diomaye Faye jamono mu ngi koy dox. Mhm. ci biir Afrique. parce que la première fois wax naa ko démb. ñu fal ab président de la République mu dem Gambie dem Guinée. dem Mauritanie. te boobu ba léegi ñuy xaar mu dem France bi jàpp ne mooy suñu colon moo ñu colonisé. te jusqu'à présent tegoo fa tànkam. Mhm. parce que ñu bëri ñu yaakaaroon ne tey jii bu fekkente ne président Bassirou Diomaye Faye. Mhm. dem na Gambie jóge Mauritanie dem Guinée ak ñaari Guinée bi ak ñaari Guinée yi bu fa jógee directement li ko waroon mooy dem fële ca France te en général ñun suñu chef d'état yi bu ñuy dem France. ça se passe comme ça lañu fay dem mooy ab nit la koo xam ne nii ku dema seeti ja ab sëriñam di yeesalaat ak njébbal mm-hmm. mais loolu wane na ne moom Bassirou Diomaye Faye defu ko mm-hmm. parce que ba mu jógee ci ñett ci réew yooyu may wax noonu dafa autorise directement euh, Côte d'Ivoire mm-hmm. te Côte d'Ivoire ñëpp xam nañ ne ci wàllu UEMOA bokk na ci réew yi nga xam ñoo ci ëpp doole ci wàllu koom-koom te boo jël aussi si Afrique de boo xool réew yi nga xam ñoo fi gën a développé ci wàllu économie Côte d'Ivoire moo jël quatrième place wala xaw ma deuxième xaw ma troisième place kon Côte d'Ivoire nekkul réew mu ndaw kon bu fekkente ne président Bassirou Diomaye Faye jël na décision wax ne dafay seeti ku ci mel ne Alassane Dramane Ouattara loolu mënuñu koy rafet mën nañu koy rafetlu te leen aussi li ma ci gën a neex ci visit bi mooy que dafa mel ni que président Bassirou Diomaye fay li ko yitteel d'abord mooy fexe ba créer benn genre coopération ak les pays africains mm. parce que booy digle càngaay day fekk sangu te bu ñu waxante dëgg ñun africains yi li ñu mën a amante suñu biir ñun ñu ko am ci tubaab yi. tubaab yi en général li ñuy imposer mooy xaalis te tubaab yi bu ñu lay imposer xaalis dañu lay dañu lay dañu ab dictat la preuve mooy que da ngay xool fu mu toll di mu ngi imposer état bu Sénégal pour lépp loo xam ne subvention la ci suñu produit dañu ko jëndi est-ce que gis nga tey jii boo gisee produit yokk mm-hmm. da nga yaakaar ne c'est hasard la du hasard. parce que FMI instant bi nii ak banque mondiale ñoom ñoo imposé état yi à ce que vraiment lépp loo xam ne subvention lañ ko fi jëlee kon bu fekkente ne ba ci suñu système éducatif bi ah bi yaakaar nga ne tey ji sénégalais yi chaque jour ñu ngi yuuxu pour que ñu jëm koy changer mais autorités yi xam nañu xam nañ ne actuellement nii ñun système éducatif bi nga xam ne nañu imposé suñu xale yi méngatul ak jamono mais fu mu toll nii amatuñ amuñu sañ-sañu laal ko. Mm. ndax lan dictat la boo xam ne mu ngi bàyyi ko ci bailleurs de fonds yi. kon bu fekkente ne ñoom dañu bëgg indi rupture dañu bëgg indi lu bees. il faut ñu créer benn collaboration bu bees boo xam dafay dox ci entre les pays africains. Mm-hmm. parce que aussi ci Afrique lu ne mën na ci am. léegi nag bu ñu dem di liggéey dañuy soog liggéey ci tubaab yi. Mm-hmm. parce que aussi xam nga boo xoolee Côte d'Ivoire économie moom la koy wax. Mm-hmm. su producteur de coc de de de cacao de mm. xam nañ ko. kawsu boo demee Côte d'Ivoire ma nga fa. coton boo demee Côte d'Ivoire ma nga fa. arachide banane or. extra extra c'est-à-dire que économiquement Côte d'Ivoire dafa taxaw. kon fait le fait que président Bassirou Diomaye Faye dem gisante ak président Alassane Ouattara waxtaan ak moom kooku benn la c'est intéressant en même temps aussi ku la jiitu ci ne wax la nooy duggee. te ñëpp xam nañ ne Alassane Dramane Ouattara dafa yàgg wax ne ne moom il est sénégalais président Alassane Ouattara moom yàgg na gars yi il faut ñu xam ne du xaritu Macky Sall waaye président xaritu Sénégal la. Mhm. te yow nga nekk un jeune chef d'état amoo yenn expérience yi lii logique tey ji bu fekkee ne teg nañ la si nguur gu ni mel da nga a seeti ji ñu mel noonu nga waxtaan ak ñoom. su ko defee au moins dana am fuñ la teg. dana am fuñ la teg. ce qui euh, li dem na fa waaye am na ay conseils yu mu fa jëlee. moo xam conseil ay conseils positifs la négatifs la mais l'essentiel ak ay conseils yu mu jëlee kon loolu muy dem mu ngi koy rafetlu fi may daanelee d'abord soxna Aïcha te dama cee kontaan mooy protocole Bassirou Diomaye Faye. Uh-huh. bu ma xëy bu ma toogee des fois dama doon suivre RTS sax maa laa ko ma nekk si uh-huh. ma koñ ko ay 23 heures. 23 uh-huh, heures mais. neexul ba neexul waaye indi na rupture indi na lu bees. parce que bu njëkkoon suñu chef d'état yi bu ñu doon di tukki moo xam ñuy dem di tukki moo xam ñuy ñibbisi. dañ doon mobiliser. tellement délégation. Ah, dañ doon dañ doon mobiliser suñu administration dañ doon mobiliser gouvernement bi. Mhm. l' ensemble des dañ doon taxaw assa dañ doon taxaw dañ dañ leen doon mobiliser ah. mhm. ñu taxaw AIBD rang. Mhm. teextu ko. chef d' état major des armées day ñëw toog taxaw. préfet sous préfet gouverneur ñëppay ñëw topp. pour lan pour jëf bi def benn genre honneur màggal ki nga xam moo de le président. buy dem noonu lay demee buy ñibbi aussi c'est la même chose. kon mu wel ne actuellement nii ñi nga xam ne suñu administration rek war nañoo kon dañuy passé benn journée boo xam daanaka duñ ko liggéey. malheureusement mu nekk benn perte ci pouvoir bi kon président Bassirou Diomaye Faye bu mu ñëwee loolu bokk na ci li nga xam ne lu njëkk a dindi. te boo fàttalikoo keroog bu muy dem Mauritanie. xool li ko tertu keroog li ko fekk keroog assemblée nationale bariwuñu bu weesoo Mary Teuw Niane Jean Baptiste Tine Ousmane Sonko yàq je pense xam nga xam nga gisaatoo si ñeneen. oui Tarmac bi c'était. gisoo fa kenn et par contre bu fekkoon ne ñeneen da ngay gis président conseil économique social et environnemental. au conseil des collectivités territoriales. chef d'état-major général des armées xaw ma la. toute la république <laughs> toute la république mobilisée euh, noppi nag tot am benn journée boo xam daanaka dañ koy ñàkk. Mm-hmm. ci amul sens kooku benn cas boo xam ne ni honnêtement man dama koo rafetlu ci protocole protocole protocole Bassirou Diomaye mais nag loolu bett ma parce que xam tax bett ma boo xoolee passation de service am nu mu mm-hmm. de service boo xam ne nii déggoo fa tama déggoo fa ndënd. déggoo fa sama mbokk géwél yi passation de service bi gën a soob bi Bassirou Diomaye Faye def ba Sénégal nekk Sénégal ba tey musul am. dëgg la. seetaan ko keroog assemblée keroog kii bu ñu nee lii sax passation de service doo ko doo gëm. maanaam prestation de serment dama juum bu mu doon def keroog ku la rey kii lii prestation de serment doo ko gëm. c' est différent ak président Macky bu mu koy jël en 2019. Sénégal yëpp lañu mobiliser yóbbu leen arena. Mbaye Peex war jël micro ay Mbaye Peex ay Farba Ngom. Ablaye Wade kenn xamul lu président Macky Sall doon wax. Ablaye Wade stade. rubrique bi bi yëpp toute une journée ñu mobiliser ñu. ndax lan ndax président boo xam ne faluwaat na faluwaat. fee protocole bi mi di fekk ba noppi mobiliser benn benn benn genre mobilisation boo xam ne extraordinaire. loolu Bassirou Diomaye Faye bu ko neexoon def ko. mais def ko. kon tey jii bu fekkente ne jël na décision daal di indi ab rupture vraiment muy def lu may rafetlu ko ba ci sax passation de service yi nga xam am ci ministres yi. oui en toute sobriété. loolu di rupture. Mhm. bu njëkkoo lan nga doon gis. da ngay ab ministre boo xam dañ koy fal. géwél bu toog ci dëkk ba toog toog toog ca ca ca ministère ba. naan ko sa ndey ko liggéey. liy jomb la sa ndey ko liggéey. man loolu bu ñu ko waxee rek sama xol day tàng. damay naan imaginer kii. Mm-hmm. passation de service bay gaañ Amadou Ba bi ñu ko falee premier ministre tey ah, damay naan xoolal kii ñun ñi nga xam ñu ngi jël te daal di koy porté ñun jël président fal ko président moom xool ci 14 millions de sénégalais yi. 14 millions de sénégalais yi mu tànn ko ci moom def ko ministre. Mm. ay géwélam toog naan lii liggéeyu ndeyam la kon cest à ñun ñi nga xam ñoo fal président moom moo ñu gën moom moo ñu gën gën ndey. c'est ça en fait <laughs> loolu lay bëgg loolu xel mënu koy nangu quand mm-hmm. kon lii nga xam ni président Bassirou Diomaye Faye commencé na ko imposer honnêtement man dama ko dama ko dama ko rafetlu moo taxoon dama ne. il faut que ma ma wax ko. te vraiment euh, lii na ñaan mu continuer soxna Aïcha. souligné nga lu am solo ñaan mu ko mm-hmm. te fi may jeexalee mooy cumul de fonction yi. Seydina balaa ngaa jeexal ci côté boobu na si euh, visite bi nga xamante ni euh, visite officielle bi nga xam ne le président Bassirou Diomaye Faye def na ko ci Côte d'Ivoire ci Alassane Dramane Ouattara comme pour dire que tu as raison hein Alassane Dramane Ouattara c'est toujours programmé en tout cas l'ami euh, très proche de de des Sénégalais loolu da ko da ko yàgg wax dafa bëgg Sénégal. alors bu bu weesoo loolu ñëpp dañ doon connoté quand même qu'il est dit euh, euh, Alassane Ouattara euh, l'ami de de Macky Sall mais également très proche de la France dañ ne ko sax ne agissement yi mu def yëpp dernièrement au niveau de la Côte d'Ivoire c'est c'est appareil yu France la ci lay ci lay ci lay ci lay déroulé alors am na sax ñu naan que. Bassirou Diomaye Faye bu demee bañ a wuyu ji euh, euh, président Macron dem seeti ji Alassane Ouattara c' est quand même chose parce que il va le rendre compte parce que ñoom ñëpp dafa mel ambassadeur la euh, la en quelque sorte parce que c' est ça qu'on disait de Macky Sall et et a jur surtout au point de vue international. non lu bëri lay jur mais li ma a xamal soxna Aïssa gis nga dafa am lu bëri loo xam ne actuellement nii gars yi ñu ngi koy incarné. te bu fekkente ne chef d'état yi dina jafe loolu yi topp ko ci. Mm. mais buñ buñ ci toppee waa Pastef Afrique dina autonome de sur quoi bi nga xam Ousmane Sonko war na ko amal suppa mm. Niger Burkina Faso. Mali Mali ak Guinée Bissau Guinée Conakry xam nga li tax mu am solo soxna Aïssa. Mm. gis nga réew yooyu nga fi mu fi tey ay réew la yoo xam ne li am ci alal kenn xamul nu mu toll. de maa ko wax ci benn chronique. réew la yoo xam ne nii li ñu am ci alal kenn xamul nu mu toll. Mm. mais te ma demence tey jii bu fekkente ne yaa ngi dem ci dëkk yi gën a pauvre réew yi fa nga leen di fekk. est-ce que xam nga ne Burkina Faso bokk na ci réew yi nga xam ne nii li ñu fay produire ci or ci Afrique amul fenn Burkina Faso mooy quatrième producteur d'or ci Afrique bu weesoo loolu Burkina Faso boo demee ci suufam. Mm-hmm. am na zinc am na cuivre. Mm-hmm. am na phosphate am na nickel. te li gën a gaaw tey jii bu fekkee te yaa ngi dem seuil de pauvreté bi 100 pour cent yoo jël 40 pour cent yi dañuy dund ci pauvreté. c'est clair sax. et pourtant boo xoolee ba xool Burkina Faso la fa am ci alal kenn xamut nu mu toll est-ce que loolu xel mun na koy nangu. la fa nekk yëpp ci ay gànjaar la fa nekk yëpp ci alal tubaab yi ñoom ñoo koy jël di ko exploité. yóbbu ko ci seen biir réew. transformé ko indiwaat ko biir Burkina Faso waa Burkina Faso di ko jëfandikoo. mais li am Burkina Faso moo am Mali. Mali mooy troisième producteur ci Afrique ci wàllu or. Afrique du Sud moom mooy jiitu Ghana topp ci Mali mooy troisième ci wàllu bu maanaam booy xam réew yi nga xam ne ëpp li ñuy produit or. Mali mooy troisième ci Afrique mais oru Mali bi est-ce que xam nga ne tey jii brique bi ñu ngi koy jël di ko yóbbu Émirats ay Émirats arabes unis. Mali yooyu demaat Émirats dañ koy jël yóbbu ko Dubaï. bu ñu paree waa Dubaay transformé mal yi dem jëli koy indi. so comment euh, di sol. loolu du loolu du ñàkk fayda. te bu weesoo loolu mais est-ce xam nga ne Mali. lii moom dama ko gëm moom. est-ce <laughs> mais mais mais su so su dafa ne am lu ne am na fa. li am Burkina Faso moo am moo am Mali. Mali tey jii boo demee su solam am na cuivre am na phosphate am na nickel am na zinc. sol sec la mais fu mu toll nii ñaar yii la ñuy exploité biir Mali. mooy sel bi ak karité bi ak or bi te or bi fu mu toll nii bu ñu bi bu demee di ko jaay waa Dubaï xam man naar yi xam nga ñaata lañ leen ñaata lañ leen di jaayee gramme bi. vingt neuf mille francs CFA. bu ko defee naar bi jël ko daal di koy transformé def ko ay takkaay ñëw jaay la ko ay ñaat ay junniy junniy millions. ci loo xam ne yow wóor na la seen boppam mënoon ngaa produire or liggéey ko ci saa si jox sa jox ko Maliens yi ñu koy jënd ci euh, ci benn moyen de coût. Mm-hmm. te li am Mali boo xoolee ba xool moo am Guinée moom moo am fu ci mel ni Niger dama la jox exemple Niger rek fu may fu fa lay jeexalee. gis nga France li nga xam moom la ñu gën a fonk mooy uranium. France li ñu gën a fonk mooy uranium moo tax gis nga bàyyi gi ñu gi ñu bàyyi France yëpp yeneen réew africain yi li leen Niger bàyyi bokk na ci li leen gën a metti. ouais c'est vrai. est-ce que xam nga ne tey jii bu fekkente ne France mu ngi utiliser ci at yëpp mu ngi bàyyi ko fële ci bañ nañ ko sax dañ jël seen entreprise installé ko ci biir Niger tur bi laay fàtte ba li gën a mooy que bu fekkente ne France mu ngi dem di jëndi uranium fu ci mel ni côté Asie mu ngay jëndee uranium bi bu dee exemple kilo la ñu ngi ko jëndee 137 000 francs CFA wala 127 000 francs CFA. Mm-hmm. bu dee Niger la ñu ngi ko fay jëndee 27 000 francs. c'est d'où l'importance su bi nga xam ne Ousmane Sonko war na koy def. Mm-hmm. so d'où l'importance tànk nemmeeku yi nga xam Bassirou Diomaye Faye mu koy def il faut que ñun africains yi ñu gëm ne ne ñun am nañu ressources yoo xam ne bu fekkente ne mobiliser nañ ko du jar ñuy soxlalee tubaab. Mm-hmm. tubaab bu ñu leen soxlaa ci leneen la mais ci ay développement non. parce am am nañu ressources yu mën a permettre à ce que ñu développé te loolu pour mën a am moom la xale yi di incarné boo gisee actuellement ni ñoom jëluñu mettre en exergue c'est les tubaab c'est parce que gëm nañu bu gëm na ne ñun africains war nañu mën développer suñu bopp parce que lépp lu ñu soxla ci alal yàlla jox nañu ko bu dee géej yàlla jox nañu ko bu dee suuf lépp lu ñu soxla ci suuf ci alal yàlla jox nañu ko bu dee ay xale yàlla jox nañu ko bu dee ndox yàlla jox nañu ko bu dee jant yàlla jox nañu ko kon lan moo ñu empêché ñu développer c'est parce que tout simplement amuñu ay bons dirigeants mais bu ñu amoon ay dirigeants yu baax kon instant bii tey Sénégal dépassé na fii Afrique dépassé na fii. moo tax ñii bu jëlee initiative wax ne dañuy dem rencontrer ces so ces soi-disant putschistes. ñu bële di leen na war ñu faa dem. mais man ñooñu dama leen naw. li tax ma naw leen c'est parce que au moins ñii. li leen li ba tax ñu coup d'état c' est parce que justement dañu dem ba ci biir gis na ne ña nekkoon seen réew liggéeyluñ seen réew mais dañ liggéey ay colon ce qui defee euh, euh, bi askan mi ñoo génn di jubilé. adama ñëw ko gis nga la population it contente tu te dis lii kon lan la. xam nga bëri kii keroog. ba Assimi keroog ba Assimi Goïta jëlee décision daal di daal di annulé lépp luy activité politique fële ca fële fële ca euh, Mali. danga dégg kenn keneen wax kenn wax si. c' est parce que tout simplement il fallait que mu def ko. parce que France boo ko génnee par la porte dafay ñëw par la fenêtre. te politiciens ay politiciens la yoo xam ne amuñu benn ay amuñu benn vergogne. c' des gens yoo xam ne pour corrompre dafa yomb. te actuellement ne mu ngi teg mu ngi nekk di teg raay ci raay bi Mali. te bu ñu deful ndànk tubaab bi mun nañu jaar ci soi-disant politiciens daal di tas Mali. fa lañ jëm. gis nga instant bii nii boo demee biir Mali Mali yëpp ay Assimi Goïta tey jii boo demee biir Mali camion yëpp ay dox yëpp photo Assimi mi koy taal lañu fa def comme ni ñuy tafee Ousmane Sonko un peu partout ci biir Sénégal. kon ñooñu. genre xale yu mel noonu. Mhm. Ibrahima Traoré. Mhm. Burkina Faso. ak ki nekk Niger ñooñu dañ leen war a jàppale. Mhm. moo tax tànki nemmeeku yi nga xam ne Ousmane Sonko mu ngi ko war na ko amal ci suppa dama ko ciy encouragé. bu baax a baax a baax. Mm, mais mais qu'est-ce que na ay critiques yu bëri. Mhm. ay critiques acerbes sax. oui nee nañ que euh, a légitimement. Euh, euh, muy dem seeti ji. voilà am na sax ñu naan. les premier ministre Sénégal buy dem seeti ay ay ay loolu moo tax. man duo président Ousmane président Bassirou Diomaye fay ak euh, le premier ministre Ousmane Sonko neex ma. Mm. parce que boo xoolee Aïcha dafa mel ni ku ci nekk am nga sa mission boo xamante ne yaa ngi koy doxal. Bassirou Diomaye fay le président am na mission boo xamante ni mi ngi ci. Mm-hmm. parce que lui il parle de réconciliation lui il parle de comment faire tey jii pour. Sénégal gën a gis boppam souverainement. Mhm. mais Ousmane Sonko aussi am na yenn pas yu important yoo xamante ne jamono ji mi ngi ci. Mhm. quand je vois certains dire que euh, euh, le premier ministre dafay dem en tant que euh, chef de PASTEF par exemple wala dafay dem en tant que premier ministre du Sénégal man j'aurais adoré qu'il y ait en tant que premier ministre du Sénégal parce que man ñoo ñuy jàppee putschiste je le dis et je le répète. peut-être démb maa ngi koy wax ci suñu live bi ñu doon def ak Moustapha Diop xëy na li may côtoyer euh, Mame Birame Wathie moo tax en fait dama am une nouvelle vision de comment mhm. les gens ni ñu jàppee tey c'est soi-disant putschiste c'est quoi mhm. être un putschiste yaa ngi jàppee nit ki putschiste alors que askan bi nga xamante ne jamono ji ñoom la ñuy diriger kontaan lañu ci ñoom jamono ji nga xamante ne moom la ñu defee coup d'état yaa ngi koy wax léegi dañu génn di applaudir mhm. dañu génn di manifester pour dire que ñoom nañu le fait que ñii di jël nguur gi Mali tey jii ban pas doxul tey pour récupérer Kidal hmm. alors que ak yeneen soxna Aïcha gis nga problème yi loolu c'est ça c'est qu'il est temps à yi réveillé wu. waaw africain africain yi ñu éveillé leen. Mm. pour que ñu xam ne ñun suñu développement du nit moo ko mën a indi développement bi ci ñun la commencé. gis nga ñun bu ñu gëmee suñu bopp comme ni ko euh, Mamadou Dia doon waxee Thomas Sankara doon ko waxee bu ñu ko gëmee bu boobaa dafay mën a sotti. Mm-hmm. te man loolu laa gëm soxna soxna mm-hmm. Aïcha. Mm-hmm. xam nga tey ñu naan putschisme gis nga tey jii bu fekkoonte ne li xew dama lay jox exemple li xew Togo xaw ma Jakarta Togo la xaw ma beneen partenaire réew de la République boo xam daanaka def nga ci pouvoir ba plus de tenter quelqu'un nga dem ba ci biir wala yow fu li la war d'abord mooy nga takk say bagage dem nga salfañee constitution ba ni léegi désormais présidence bi assemblée nationale lay jaar te parce que sa parti moo nekk au pouvoir ñu wote ko à euh, euh, presque à quatre pour cent mm-hmm. nga ñëw tey jii il fallait que rek tey jii bu fekkonte ne armée ba jóg nañu daal di renverser pouvoir ba nga jékki-jékki dégg dégg dégg communauté internationale. ay putschistes. ñu commencé jóg di fustiger CEDEAO jóg di yéen ay sanctions. Mhm. te duñu fustiger. alors que ñu fustiger bi nga xam ne gars def nañu ko ci constitution bi. Mhm. Mhm. comme li xewoon Sénégal. mooy tey jii bu fekkente ne ak militaires jël nañu armée man bien que ànduma ci coup d'état mais coup d'état bi gën a garaaw mooy coup d'état constitutionnel. Ah te benn suñu président actuellement moom la ñuy def. te doo dégg benn yoon communauté internationale bi fustigé ko. doo dégg benn yoon waa CEDEAO fustigé ko. kon ñii même bu fekkente ne coup d'état nañ seen réew seen wax réew gis nañ ci seen bopp. Mm-hmm. parce que jéego yi nga xam ne ñu nekk di teg jamono ji seen réew gis nañ ci seen bopp kon man gisuma ci import euh, bu fekkente loolu moo tax ñu naan coup d'état mm-hmm. man ànd naa ci à 100 pour cent. Ah parce que au moins fexe nañu bi mu dagg ko mu dagg ko. gis nga soxna soxna Aïssa fa laay jeexalee oui très rapidement. dama lay jox exemple rek ci Sénégal gii est-ce que mën ngaa comprendre Sénégal gii ak nu mu toll. Hmm. plus de deux mille entreprises françaises nekk fi. ndaway Sénégal. jël suñu géej a accaparé ko jël suñu suuf accaparé ko jël suñu téléphone a accaparé ko jël suñu yoon accaparé ko. suñu marché sax léegi dañ ko accaparé te parce que dem nañ bu finalement ñu Sénégalais am nañu benn complexe non moo tax maa maa jéppi ñuy dem Auchan di fa di fa nduggi. ah déedéet ah, ah déedéet foofu moom c'est bien xam nga sama xarit nga maa ngi ñëw rek du ma d'accord ci yow. nit ki da ngay gëm sa bopp. Mhm. lijjantil leen ñu xaaral ma ñëw nit ki da ngay gëm sa bopp. luy ndew Auchan yow naka nga mën a bàyyee tey marché bi nga xam ne yow da la wóor na ne. sa bàjjen fa lay jaayee say jarbaat fa la ñuy meeru koñ bi fa lay jaayee nga ne ko fu ñuq fa dem fa naan da ngay uti oson pour lan pour yéem a dooleel ab tubaab boo xam lépp lu mu am ci alal mu ko yóbbu à l'étranger maa jéppi ñi dem oson là aussi c'est un autre débat Seydina là aussi c'est un autre débat xam nga tamit gis nga français yi li ñu mënee bopp na non non doo mën seen bopp gis nga boo demee en France produit français produit français. lu mu cher cher cher moom la ñuy jënd. dëgg la. dañ koy jënd c'est parce que simplement def ñu ko pour dara mais dañ koy def pour doole seen producteur ñoom. dem ko Osa ma nga ngeen di toog. mais mooy ndeyu tey jii yow nga bàyyi sa marché koñ. yow nga xam ne ne yow marché bi ba ngay judd sa koñ ba nga ko fekk. Mhm. marché bi ba ngay judd sa koñ ba nga ko fekk. nga fay fekk ay ñoom meer na koy ay maire tunkara ay maire xaw ma lan ak lan. taakum ba suñu koñ day jaay xoolal maire marché waranka bu génn a rey dem nañ bi finalement maire ba fa doon jaay moom lañu jël marché tuddi ko maire ah, waranka mu créé benn genre symbiose bu neex histoire des fois nga ñàkk dugg sax. des fois nga jékki-jékki ñàkk dugg bi may la. Ah, léegi yéen ngeen ñëw rek tubaab yi jaay leen ab Auchan rek kenn ku ne man balaa maa dee rek. nit nit gaar oto bu. buntu Auchan rek. didi ab saru yoom rek di ngand ngand lu courant. pour moom rey na rey na gaynde gi. alors que yow mu sax reyoo ko. est ah. euh, ce que du état a moderniser. très soxna si soxna si soxna si soxna si sax. marché accompagner seen bopp soxna si déggoo lu mu wax sànq. Mhm. déggoo lu mu wax sànq dama ne gis nga nit ki dangay ngay gëm sa bopp. waaw nee naa la français yi. seen produit lu mu cher cher cher bu ñu duggee ci supermarché moom la ñuy jënd. d'accord Seydina ñu daaneel parce que temps bi xot nañu. produit suma yaa nga fa.

lu jeex fa lay nduggee. bu bu neex sax bu wàccee ma jaar marché Kër Masar ndugg indil ko. ah dégg nga loolu. ah macha allah boo daal jël sa chariot mu gën a rafet. <laughs> dinañ tëb seen bopp quand même. non diri chariot lu neex a ngi noonu yow dafa tubaabe daal. Aïcha xam nga kañ ngay xam ne Auchan a na xam nga kañ ngay neex na weeru koor gi yàlla bu tàng ba nga dugg Auchan clim bi laal la tuuti. bàyyi ma kii nag dem ci taa kumba maire bi nekk sama koñ di ko ko dugg nii da ngay am dara de tam nañ dugg kay xamal a bëri léegi léegi sans plus tard dañuy dem seeti ji koo dugg na de léegi léegi dem seeti ji jàkke mbay si yàlla àtteeg yow